gynécologue euh, accoucheur euh, ñu daal di koy dalal tey ci seen émission bi di SOS santé docteur Ciss ñu ngi lay wax jërëjëf waaye tamit dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM. waaw jërëjëf maa ngi euh, jaajëfal waa rajo Rewmi FM di nuyu auditeurs yëpp ci émission bi di ko rafetlu tamit. Mm-hmm. docteur Daouda Ciss tey nag euh, suñu waxtaan dafay jëm ci jàngoro bu ñuy duppee endométriose dañ koy faratal di dégg souvent ñu bëggoon xam tey endométriose lan lay signifier. waaw endométriose euh, nekk na feebaru jigéen boo xamante dañ ko xaw a mbir. Mm-hmm. parce que euh, am na ñu bëri ñu muy dal mais dañ ko xam wala dañ koy yéex xam parce que boo xoolee. Euh, si butu njurukaayu jigéen dafa ñetti couche maanaam ñetti partie yoo xamante ne ñoo ko euh, ñoo ko sëkk bi nekk ci biir mu ñuy wax endomètre maanaam euh, bu ndaw si ëmbee doom bi foofu lay nekk ci biir foofu noonu bi si topp mooy myomètre mooy li nga xam ne mooy tax buy mattu xale bi mën a génn mu am ay métit am am contraction bi si mujjee nag mooy bi nekk ci kaw moom la wax la séreuse ritu na yàlla mu ñetti couche yooyu noonu te ci yoon couche bu nekk dafa war a yem place am maintenant couche bi nga xamante ne mooy endomètre bi nekk ci biir bi nga xamante ne fa la doom war a nekk wala fa ëmb bi war a nekk boobu bu fekkee ne cellules yi fa nekk maanaam pepp yi fa nekk dafa jugee dem feneen donc loolu ñuy wax endométriose am na ñaari façon nag am na interne ak externe donc interne bi nekk ci biir bi nga xamante ne day yem ci euh, deuxième couche bi ma wax. bi nga xam ne soymatu mooy tax nga yëg mettit bu yemee foofu ñu ngi ko tuddee adénomyose léegi bu weesoo foofu mën a nekk ci biir bitit ci biir euh, naq bi mu nekk endométriose externe mun a jàpp nag euh, su boobaa nag ay euh, organes yu bari mun a jàpp ovaires yi mën a jàpp trompe yi indi la sax jaasil mën a jàpp tamit sa naq bi daal fëpp sa butit yi mën a yegg sax ba jàpp sa xëtër yi wala sa xol bi paaxol bi sa kii bi ñu ko waxee ci wolof sa sa foie bi sa res bi wala mu jàpp euh, sa xëtër yi euh, wala mu jàpp tamit sa euh, fi ngay sawee daal sa vessie bi mm-hmm. waaw ah, yooyu yëpp dañ ko gis ci ay localisation mm-hmm. mu mel ni endométriose nekk na feebar bu yaatu loolu mais dafa mel ni su ma la déggee ci say explication ñu bëri ci askan wi maîtriser wuñ ko rawatina ci xale yu jigéen yi yaa ngi koy wax endométriose euh, bëri na bëri na tey jii nag ñu bëggoon rek tàmbali ci bi nga xamante ne moom moo di endométriose digestive docteur lan nga ñu mën a wax euh, ci endométriose boobu le forme Ah, boobu ci forme grave yi la bokk dafa am ay forme grave forme grave yi mooy form profonde yi mi nga xamante ne day nekk ci euh, butit njur butit bi ñuy sawee mm-hmm. mooy vessie bi bi nekk euh, si xëtër bi bi nekk si rees bi ak buy nekk si digestif bi maanaam si estomac bi mm-hmm. bu boo ko amee mën na la indil euh, booy wàccu ngay wàccu deret wala booy cabinet cabinet bi di ñuul wala muy xonq nga mel ni comme hémorroïde te fekk du hémorroïde endométriose moo koy waral loolu moo tax mu garaaw. Mhm. te am na fu nu muy demee sax mën na bëtt sa bëtit bi. Mhm. mu jot benn complication boo xam ne sax mën nga see loru daal. Mhm. waaw. d'accord bu nekk am na lu koy faj moom euh, forme grave bi la tey jii bu xale bu jigéen demee ba am endométriose digestive euh, ban ban ban procédure la war a jël euh, nga ngir mu mun a taqalikoo jàngoro boobu. xam nga endométriose sax bon naa gis war a wax mais boo xoolee. Euh, endométriose li ci gën a bari euh, pelvienne lay nekk maanaam si biir njurukaay bi lay nekk. Mm-hmm. te ñi koy am boo xoolee am na euh, ñaar fukki at jëm fanweeri ñoo koy am li ci bari daal léeg-léeg sax ñu am ñeent fukki at mën nañ ko am tamit loolu tamit dañ koy gis si endométriose te boo xoolee ñi bëgg am doom le plus souvent ñi tollu ci am doom ñoo koy am mais ñi nga xamante ne ménopause nañ bu ñu ko amoon duñ ko dee wàññeeku wala bu ko amaloon tamit duñ ko amaat mm-hmm. après ménopause bi. Mm-hmm. alors li koy waral nag euh, endométriose bari na yeneen facteur de risque yi. Mm-hmm. donc euh, bari na mën naa ci lim lim yenn rek maanaam bu fekkee ne ce kii amoon na ko sa yaay wala sa tante wala sa euh, ma tante mooy maanaam sa rakku yaay wala sa magu yaay yu demee noonu ñoo bokkal deret mën nga ko am tamit bu fekkee ne aussi da nga yéex a sëy yéex am doom bu fekkee ne da nga yéex a gis sa faute tamit mën nga ko am tamit bu fekkee ne aussi da nga yéex a ménopause aussi. mën nga am endométriose wala fekkee tamit sa fóot daa jegante man ñu ngi règle yi dafa jegante dafa néew. Mm-hmm. donc euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñett bu ko néewee. Mm-hmm. loolu te mën na la jox euh, euh, endométriose bu fekkee ne aussi di gis sa fóot dafa ëpp juróom-ñetti fan tamit mën na la jox endométriose waaye parfois tamit malformation te yenn malformation yi bëtu njurukaay yi tamit mën na la ko jox. Mm-hmm. bu fekkee tamit da jur lu bari na multiparité. boo juree lu ëpp juróomi doom dana mën la jox endométriose tamit wala tamit euh, euh, nga yéex a gis sa wax naa ko sànq tamit euh, wala nga jël planning planning bu yàgg tamit ay hormones ak yooyu noonu daal pilule yi daal. Mm-hmm. yooyu tam mën na la ko jox. Mm-hmm. donc loolu daal mooy gën a faral di joxe endométriose donc bu loolu weesoo ci endométriose digestive su ma si ñëwaatee day mel ni li ma wax sànq rek da lay may jox comme estomac comme estomac donc sa biir day bi. nekkul euh, boo xiifee lay métti wala nekkul euh, boo lekkee lu saf lay métti te métti di continuer quoi di continuer métti tout le temps alors métti boobu nag dina dem jox la ngay wàccu parfois ngay wàccu deret da ngay cabinet lu ñuul wala lu xonk ni mu ko waxee sànq ndax mun nekk deret bu dee wala deret bu bees. Mhm. wax nga ko ah, wax nga ko dafa mel ni endométriose métriose digestive bu weesoo li nga fi jotalim dafa mel ni dafa am ay ay sources génétiques maanaam jigéen mun na ko jëlee ci yaayam. waaw effectivement maanaam euh, am na ci partie boo xamante ne euh, day wàlle day wàlle si wàllu génétique si wàllum ndono day wàlle voilà moo tax euh, sa yaay bu ko amee am nga risque nga am ko. am nga risque nga am ko mais nekkul ne di nga ko am forcément. Mhm. mais am nga risque nga am ko waaw. Euh, foofu leer na docteur dañu dem ci weneen pàcc bi ñëw ci li nga xamante ne moom moo di endométriose pulmonaire boobu tamit certainement muy muy muy benn ci ci pàccu jàngoro boobu. waaw boobu tamit mu ñu ma sànq rek endométriose profonde parce que boo jugee bu doon jurukaay bi. donc bu ko paasee rek da la jox endométriose profonde. Mhm. donc euh, yooyu tamit mën na egg si. Euh, ci res bi si euh, poumon maanaam euh, xëtër bi ah mooy bi poumon mooy xëtër bi alors xëtër bu fa yeggee tamit da lay jox ngay sëxët nga mel ni comme tuberculose ngay sëxët ci sëxët boobulee tamit donc euh, mën na la jox bu xaxandikoo nga tufli deret donc tuddee ko hémoptysie deret boobu ngay tufli mën nañ yaakaar da nga am tuberculose da nga am canceru dënn bi wala yu demee noonu fekk endométriose kese mën a ko jox mm-hmm. te loolu boo defee ay radiographie lu mel ni IRM mën na ko génne mm-hmm. waaw Euh, kon boo defulee radiographie munoo am xel nekk am nga endométriose d'autant plus que sëkkat ñu ci bëri dañ koy xaw a méngale ak tuberculose même si crachat bi dafay am li nga xamante ne moom moo di deret. effectivement am nga euh, feebar boo gis dafa bay signe. waaw mm-hmm. signe yi gis mooy maanaam li attiré suñu attention ñu yaakaar ne lii li mën na ko nekk donc kuy sëkkat ku ne di tufli deret di njëkk xalaat su suñu dëkk yi nga xamante ne dafay bari tuberculose. loolu la ñuy njëkk a xalaat mais bu loolu weesoo tamit mën nañ xalaat cancer du dënn mën nañ xalaat benn façon feebar boo xam day joxe euh, euh, tuflit donc bu mel ni deret wala boobu deret daal alors mais endométriose donc euh, il faut nga def radiographie pour mën a xam ndax moom la wala du moom. Mm-hmm. mooy tax nga xam ne moom la mooy tax aussi nga xam ne du tuberculose wala du cancer. Mm-hmm. voilà endométriose moom faaw nga def li ñu naan imagerie donc li ci gën a baax nag gën cee gën a sensible ci loolu. mooy bi naan IRM. image de par résonance magnétique. waaw mm-hmm. ah, boobu waaw. d'accord d'accord euh, bu jigéen tolloo foofu noonu traitement bi benn la wala. waaw traitement endométriose ça dépend ci fu mu nekk. Mm-hmm. ak stade bu mu toll tamit. Mm-hmm. parce que bu fekkee ne daf la jox kist wala jox la donju bul boo xamante ne am na fa mu ne te mun nañ ko opeere donc euh, dañ koy opérer mais fekkee ne dafa nekk foo xamante ne euh, mënuñ ko opérer. léeg-léeg ay garab da nga lay jox donc pour calmer métit bi ak yu demee noonu pour bañ mu law tamit. Mm-hmm. waaw donc traitement boo xoolee daal li ñu naan traitement symptomatique lay nekk su boobaa su méttee dañ jox garab bu méttit ay anti inflammatoire dañ lay jox ay antalgique ak parfois ay hormones yoo xamante ne day tax euh, euh, maanaam day day day bloqué évolution feebar bi mais bu loolu weesoo euh, traitement bi ci gën a am solo daal mooy. opération bi su fekkee ne kyste la wala tumeur la boo xamante ne maanaam euh, donj la daal boo xam ne dañ ko dindi. Mm-hmm. d'accord d'accord docteur ñëw ci beneen bi nag euh, moom mooy endométriose vésicale certainement nit yi sax bu ñu déggee endométriose vésicale dina leen tiite un tout petit à l'esprit tey jii lan nga ñu ci mën a wax euh, ci bu gën a yaatu. waaw loolu yëpp ci wàllu forme grave la rek mm-hmm. mooy endométriose pulmonaire. donc ak euh, vésicale bi nga wax nii ak digestive yooyu yëpp boo xoolee ay forme profonde la alors vésicale bi bi nga xamante ne day nekk ci sawukaay bi alors sawukaay boobu bu fa nekkee donc ki ko amee mën na ko jox ay méttitu donc euh, naq bi mm-hmm. mën na ko jox tamit euh, muy saw deret di naan hématurie yi donc buy saw deret boobu tamit mën na ko jox feebar yu bari parce que mën na ko jox ay complication lu mel nii anémie mm-hmm. wala mu jox ko insuffisance cardiaque après. Mm-hmm. ak yu demee noonu. mais kuy saw deret ku ne rek da nga xool ndax endométriose la ndax cancer du sida la wala ndax la parce que boo xoolee nit ki mën na saw deret fekk du endométriose. Mm-hmm. mais pour ñu xam lan la le plus souvent faa ñu def euh, endoscopie lañ koy wax. Mm-hmm. man ay rajo la yoo xamante ne euh, bu ñu ko defee si la ñuy gis ne lii endométriose la wala leneen la daal waaw mais comme ni mu ko waxee sànq ci euh, ci ci xëtër faaw ñu def imagerie par résonance magnétique wala ñu def li ñu naan endoscopie donc mooy tax ñu xool ci biir donc euh, ci biir euh, euh, bu dee sawukaay bi ndax amul ay nodules yu fa nekk yoo xamante ne et endométriose moo euh, dañuy des ci wàll woowu euh, fii dañoo baaxoo euh, bu jigéen di gis mbaax certainement day ànd ak ay yi nga xamante ne moom moo di ay douleur ñenn saa ñi nga xamante ne seen biir day metti ñi bopp am na ci ñoo xamante ne dañuy dem ba dañuy vomir bu tolloo foofu am nga ay signes yoo xamante ne wax nga ko fi mu mel nii dafa xaw a méngoo ak cycle ak douleur menstruelle yi ñu buggoon xam douleur yooyu yan différence la am. waaw boo xoolee euh, jigéen bi gis fóot muy metti ñu nga tuddee règle douloureuse mm-hmm. mooy dysménorrhée euh, loolu am na façon yu bari mm-hmm. am na si ñoo xamante ne bu ñuy commencé gis fóot lay metti bu fóot bi ñëwee mu arrêté du metteeti ñi bu ñëwee lay metti ba balaa muy jeex mu arrêté ñi balaa muy jeex donc lay commencé metti mu nekk ay formes yoo xamante dafa wute li koy joxe ki am endométriose nag moom boo xoolee day am règle douloureuse donc tardive lañ koy wax maanaam dysménorrhée tardive c'est-à-dire que bu nekkee ndaw donc euh, du am euh, maanaam euh, règle douloureuse mais moom basam da nekk secondaire mhm. donc day am ay benn doom ñaar du juróomi doom jëm kaw mhm. mu commencé am règle douloureuse foofu mën nañ njortu ne kii am na dysménorrhée donc secondaire et tardive maanaam day ñëw après fekk am na doom ba pare mu koy doog a dal en plus day yéex a ñëw bu règle yi di jeex si lay commencé commencé métti métti naq bi. Mm-hmm. parce que boo xoolee ci jigéen ñi boo jëlee fukki jigéen ñoom règle douloureuse ñeent ñi endométriose lañ amee te xamuñu ko. donc ñeent ñi endométriose lañ amee xamuñu ko mu nekk loo xamante ne xaw na bari te nit ñi dañ ko xaw a réeré mbir ni mu ko waxee sànq su njëlbeen. Mm-hmm. donc endométriose moom day joxe loolu. alors euh, benn question nga waxal sax le fait di di ban différence la am. ah différence ok règles yi ah d' accord bon endométriose moom dafa lay jox douleur boo xamante ne le plus souvent xam nga règles douloureuses chaque cycle maanaam bu sa règle ñëwee rek donc euh, lay metti bu règle di demee mu arrêté. Mhm. mais endométriose li ci gën a bari donc bu sa règle ñàkk ñëw day metti continuer. li ci gën a bari. Mhm. voilà am na fu muy demee sax donc da lay tere liggéey da tere def lu bari ci kër gi. da lay handicapé voilà lay day invalidante su boobaa. Mhm. d' mais mais mais docteur euh, am na lu bari loo xamante ne jigéen yi euh, umpale nañ ko ndax dañu jàpp na rek euh, sooy gis baax da ngay am ay douleur ba yenn saay comme tu l'as dit boo jëlee fukki fukki jigéen. kenn certainement mun na ci am li nga xamante ne moom mooy endométriose ndax euh, tey jii nii c'est c'est facile pour ñoom ñuy farataal di dem hôpital pour mun a def différence bi entre règle bi règle douloureuse rese wala man dama am ay signes annonciateurs u jàngoro bi di endométriose. waaw bu fekkee ne euh, règle douloureuse la bu règle di tàmbali ba muy jeex nga am métit bu règle di jeexee amatoo métit ci yoon. Mm. mais bu fekkee dafa continuer métti donc euh, di continuer di métti ñàkk règle am règle mu métti. du nag nga ñëw ñu saytu xool bi xam ndax du endométriose. Mm-hmm. waaw yéex a yéex a yéex a diagnostic bi aussi tamit lan la ci mën a jur. waaw yéex a si bi mën na jur euh, complication yi maanaam endométriose externe mën na la ko jox. Mm-hmm. te bu la ko joxee tamit après euh, mën na dem bi jàpp xëtër bi jàpp rees bi jàpp euh, estomac yi maanaam rees bi mooy maanaam butit yi daal. Mm-hmm. wala mu jàpp vessie bi. Mm-hmm. jox la endométriose pulmonaire donc digestive ak vésicale ak yooyu daal waaw. docteur Daouda Ciss nekk gynécologue accoucheur ah, ñu bëggoon xam euh, ci ban moment euh, le le patient yi di gën a farataal di ñëw euh, te bu ñuy ñëw day fekk jàngoro bi avancé na. waaw ñu si gën a bari bu ñuy ñëw day fekk dañoo bëgg am doom. Mm. mënuñu am doom. ñu defee analyse def ay rajo gis nañ ñii kat seen trompe yi dafa bouché maanaam bu dënjukaay dafa am dafa dafa raccord yi fa nekk. Mm. te nen bi war faa mën a joxe ëmb. dafa bouché léegi nag si lañuy ñuy gën a ñëw boo xoolee su boobaa day fekk c'est trop tard parce que euh, lii na addérance dafay joxe day taxaloo foofu dajaloo donc boo defee liggéey duñ ko euh, mën a traité ni ko war a traité parce que day fekk c'est trop tard. Mm-hmm. te loolu moom euh, mara détail yi. Mm. ko am mën nga am doom gaa mais normalement doo ko mën a amee doom xanaa nga def li ñu naan fécondation in vitro. Mm. waaw loolu daal la ñuy gën a faral di gis jigéen di ñëw. Mm-hmm. Euh, consultation parce que toog nañ sëy sëy nañ lu yàgg amuñu doom def nañ analyse ñu gis ne donc euh, trompe yi daa bouché daal di doog a ñëw pour ñu traité loolu daal. voilà mhm. stade boobu la ñuy ñëwee ñu ci gën a bari. Euh, docteur certainement da ngay nekk en contact permanent avec tes tes tes patients bu ñu ñëwee ngeen xam leen ne donc jàngoro bi ngeen am mën na leen tere ngeen mën na leen empêcher ngeen ngeen ngeen procréer donc psychologiquement. naka ñoom lañu la ñuy farataalee di di di di di di di accueillir cette nouvelle. waaw lu metti la lu metti la ñu xamal la na yow mënu am doom normalement ci yoon ni ko yàlla bindee naturellement mënu amee doom noonu loolu day xaw a metti euh, mais donc euh, du neex nag accueil bi parce que nouvelle boobu dafa metti mm-hmm. te it euh, ñu bëri am ñu mu moyen pour def fécondation in vitro boobu. bu ko defee après euh, day daal doy waar te day fekk ñoom avant sax dañuy dund yu bari seen i kër seen i kër goro yi donc ay gaaruwaale ay dañ ko fay dañ ko fay dund donc mu metti lool toog ay at donc euh, nekk sa borom kër amul amul amuloo ëmb de daal di metti euh, day daal di metti si ñoom mm-hmm. boo ñëwee ñu ne lii moo tax yaa am problème moo tax amu leen doom day yokk seen i métit ak seen i naxar mm-hmm. moo tax it euh, vraiment lu métti la daal annoncer leen nouvelle boobu Euh, psychologiquement est-ce que femmes yooyu soxla soxlawuñu accompagnement ak tamit ndax ñun suñu suñu société yi yéen par exemple au niveau donc euh, de la gynécologie ndax il arrive ngeen di liggéey en partenariat avec ñoo xamante ne ay psychologue lañu wala socio-psychologue pour une fois bu nouvelle yooyu amee donc ñu mun leen accompagner dalal leen defal leen d'autant plus que wax nga ne ñun au niveau de nos familles dañu foog ne sëy amaana c'est vrai que doom bénéfice la mais amul fenn fuñ ko bind ci contrat mais on est dans une société sénégalaise doom dafa bokk ci sëy ndax à votre niveau il vous arrive ngeen di liggéey en partenariat avec les psychosociologues euh, ba di leen mën a orienter ci seen yenn patients yi. waaw effectivement léeg-léeg jigéen ñu toog sa bureau nga waxtaan ak moom. Mhm. mu bënn roo nga di jooy donc euh, nga xam ne lu metti loo nga jël jël sa temps bàyyi lépp li ngay def déglu ko waxtaan ak moom. et puis euh, ko ci euh, assistance sociale yi parce que boo xoolee hôpital boo dem léegi am na assistance sociale bu ko defee ñu ne leen di booleeg euh, ñooñu donc ñu saytu leen waxtaan ak ñoom defal leen ak ñu demee noonu daal mm-hmm. waaw. Mm-hmm. donc yombul surtout suñu contexte bi ñu dund au Sénégal mm-hmm. actuellement comme ni nga ko waxee sànq doom bi bénéfice la ci sëy mais Sénégal dafa mel ni lu obligatoire ci sëy actuellement donc moo tax ba bu ko si jigéen amul rek ñu wax ko dafa am feebar mënatu ko am mënu ko am faw mu def fécondation in vitro te amul moyen day xaw a métti métti si moom métti si borom këram encore te am na yeneen risques yu ci nekk tamit mooy maanaam mun nañu tàkkal wujju mun nañu la fase ak yu demee noonu daal yooyu yëpp dañ ko ciy gis daal waaw ndax loolu. Mm. d'accord euh, docteur wax nga ko ñaa euh, ci say biir i wax sànq euh, fécondation in vitro mun na nekk recours soxna soo xamante ne dafa am jàngoro bii di endométriose ndax suñu culture wala mentalement donc il arrive ko des sénégalaises. avec leur famille ñu procéder effectivement par rapport ak fécondation in vitro boobu. waaw am na ñu koy def Sénégal. am na ñu koy def mais xam nga loolu def am confidentialité bu ci nekk maanaam secret. donc mu ci nekk ak. maanaam sutura daal sutura. waaw donc ñi koy def diñ ko wax ne diñ ne diñ ne man lii laa def pour am doom. non mais Euh, nit ñi maanaam ñu leen suivre dañu xam ne fii lañ jaar bi am mais euh, seen famille duñ ko xam kenn dañ ko xam. dafa am maanaam secret ci liggéey boobu moo tax. waa mhm. donc donc dafay mel ni comme une grossesse normale. waaw grossesse normale lay doon parce que dañuy jël ma néew ko góor ki. ci loolu jaan yi si gën a baax boo boole kook euh, nenu ko jigéen ki. Mhm. ba mu nekk ëmb ñu daal di ko placer ku jigéen ki. Mhm. waaw mhm. sauf ko fi mu war a jaar normalement du fa jaare loolu rek mooy différence bi. d'accord d'accord euh, ndax ñi am recours à cette métode bëri na si on sait que certainement euh, cela nécessite benn ko waaw nag loolu nag mooy problème bi nag. ñu bëri boo xoolee euh, li nga def fécondation in vitro mais ñu moyen. dañ obligé les moyens du bord donc euh, nga jël jàppale ci loolu mais le plus souvent da nga échec parce que euh, am na fi ñuy toll daal loolu rek mooy solution. Mm-hmm. waaw beneen solution du mën a réussir. waaw. d'accord euh, docteur ñu bëggoon xam rek nga wax ñu tey ban jigéen moom la endométriose soxal ku musul sëy ku dem ba am benn doom nga taxaw comme on dit wala endométriose ça signifie purement et simplement euh, que jigéen bu musuta am doom lay daal. non endométriose euh, euh, mën na gën a bari si ñooñu ñu mësuñu am doom mais ñëpp la soxal donc ñi nga xamante ne mësuñu am doom ñi nga xamante ne aussi seen doom dafa sorente ñi nga xamante ne dañu yéex a gis faute wala dañu yéex a am ay egg si ménopause ak wax naa ko sànq facteur risque yooyu noonu. Mm. ñoo ñëpp maanaam koo xam ne dafa toll ci am doom ménopause gul endométriose yooyu soxal na la ah, surtout sa naq bi faral di métti tout donc loolu soxal na la endométriose. Mm-hmm. Mm-hmm. d'accord endométriose ku ko dégg sa xel dafay dem ci ki nga xamante ne mënta am doom muy jigéen bu infertile mais am na beneen wàll bi ñuy wax hyperfertilité lan mooy différence entre les deux mots wala même la. hypo hypofertilité. waaw hypofertilité mooy ki nga xamante ne euh, maanaam euh, mën na am doom. Mhm. Euh, mais chance am yi dafa wàññeeku dafa wàññeeku dafa xaw a néew par rapport ak ki nga xamante ne dafa am fertilité bu normal donc infertilité mooy ki nga xamante ne jaasilul. Mhm. mën na am doom. Mhm. mais am na lu ko teree am doom te loolu mën nañ koo faj. waaw donc boo xoolee sorante mais euh, yëpp ci cadre kii la daal fertilité la bokk maanaam infertilité ak hypofertilité boo xoolee sorantewul daal. Mhm. sorantewul waaw. benn bi moo tane beneen bi quand Euh, dañuy xaw a tànnante tuuti. voilà dañuy tànnante tuuti rek waaw. Euh, docteur euh, wax nañ ko léegi nii fécondation in vitro moom nga ma wax mais bu weesoo fécondation in vitro certainement ñi nga xamante ne seen doole may na leen ko mun nañ def li nga xamante ne moom moo di chirurgie mu nekk benn intervention boo xamante ne intervention lourde la chirurgie boobu naka lay demee ak comment ça se passe yi. waaw chirurgie bi bu fekkee ne euh, endométriose bi daf laa jox daf laa jox euh, li ñuy naan euh, ay kyste endométriosique wala ay endométriome mu nekk ay boules yoo xamante ne day nekk ci ci naq bi yooyu mën nañ ko opérer ñu dindi ko mm-hmm. fekkee moo tax mënoo am mënoo am doom wala aussi fekkee dafa bouché maanaam raccord yi nga xamante ne moo jëm si bëtu njurukaay bi bu ko bouché mën nañ ko débouché ci ça dépend ci partie bi mu bouché tamit am na fu muy bouché wu mënuñu ko débouché wu bi ñu ko débouché tamit mën na bouché waat après. Mm-hmm. mais am na fu muy bouché wu foo xamante ne mën nañu ko dindi sans problème débouché ko ba nga mën ci jëlaat ëmb. Mm-hmm. voilà. Mm-hmm. donc loolu rek la mën a am comme comme recours. waaw ah, comme recours rek la mën a am waaw comme recours bu dul euh, fécondation in vitro. bu dul fécondation in vitro recours boobu la mais tey jii di nga gis koo xamante ne certainement comme nuñ ko waxee doom day nekk ci moom sax ci moom donc à chaque fois mu defee benn tentative bu échecqué dafay bëgg renou euh, renouveler waat tentative boobu ñu bëggoon xam tey la fait que jigéen na bëgg am doom di multiplier ay opération ndax finalement moralement physiquement euh, lan la ci mën a jële comme gàllankoor. Bon, physiquement, si euh, <laughs> l'opération se passe bien, il pas de problème. Mm Maintenant, peut-être que moralement, mën na ko atteindre parce que aussi euh, warul nekk euh, benn genre où euh, <laughs> mën a tuddee <laughs> ci wolof maanaam benn genre contrainte xam naa mën tuddee. Mm-hmm. maanaam loo xamante ne forcé faaw doom loolu moom maanaam bénéfice la ci sey rek doom mm-hmm. moo tax. waru nekk obsession daal waru nekk kur kur war nga am doom donc doom yàlla koy joxe defal li la war donc li si des nag def ko si loxo yàlla yaakaar na loolu moo gën. tey jii mu nekk obsession ndax jotul euh, ñuy amal ay ay ay ay sensibilisation bàjjenu gox yi certainement am na euh, fu ñu yem mais aussi ndax sensibilisation gënuñu waruñu ko gën a mel a élargir ci contexte boobu. waaw war na mën na nekk boo xoolee nañ def ay ay def ay counseling ci lu jëm si loolu si hôpital boo nag boo gis am na normalement euh, service euh, buy def euh, buy def yooyu ci sage-femme ñoo koy def parfois wala mm-hmm. boo demee si yenn poste de santé yi bàyyi gi gox yi mën nañ ko def to yaakaar naa ne Sénégal foo munti dem am na poste de santé donc gëm naa ne bàyyi gi ne gox yi fa ne mun na indi sensibilisation par rapport ak problème yi demee nii daal population bi. <laughs> d'accord euh, docteur Daouda Ciss ndax tey ñun au Sénégal dinañ def li nga xamante ne moom lañuy ñuy duppee ablation ablation de de de l'utérus. <laughs> ablation utérus kay <laughs> loolu kay moom waaw dañ ko def fii loolu yàgg na sax léegi sax loolu ko def yàgg loolu moom waaw dañ koy def fii waaw lu nag tuddee hystérectomie hystérectomie waaw. Mhm. d'accord maanaam dañuy dindi bëtu njurikaay bi daal. Mhm. d'accord euh, comment ça se passe euh, entre les les les les les conjoints wala kan moo jël décision boobu euh, docteur yi ñoo leen koy xaw a conseiller donte ça fait un peu mal wala souvent donc euh, bu ñu defee seeni introspection xam ne fii yàlla moo fi nekk te xaj nañu ko on est obligé de se soumettre comment ça se passe. bon ci wàllu endométriose moom li ci gën a bari loolu duñ ko def ci endométriose kese. Mhm. loolu duñ ko def. maintenant su fekkee dafa ànd ak benn façon feebar mën nañ def loolu tamit fekkee ànd ak benn façon feebar lu mel ni. benn feebar bu ci lu mel ni fibrome yoo xamante ne euh, euh, dafa doy waar da lay sonal lu ci mel ni yenn façon kyste yi wala lu ci mel ni donc euh, début cancer par exemple le cancer. Mm-hmm. bu dee njurukaay bi. Mm-hmm. wala yu demee noonu mën nañ koo dindi def mm-hmm. ablation bi daal. mais loolu sa se fait tout le temps dañuy waxtaan ak couple bi. ba ñu d'accord si ñu door koo def. wala parfois nag yenn situation donc parfois comme bu nekkul euh, endométriose sax nga gis ko xamante ne day wasin ba pare sax ñu def ablation bi parce que communication yi mu am après accouchement bi mooy tax mm-hmm. waaw mais kenn du jël décision donc euh, def ablation yi nii rek am na lu koy firndeel tout le temps am na lu koy waral. am na am na am na consensus aussi parfois ñu def ko euh, sur le plan légal médico-légal parce que boo gisee ne dindi ko moo gën pour dund ko jigéen ki da nga koy benn yoon. Mm-hmm. mais loolu nekkul tout le temps lañ koy def boo xoolee si si niveau si le plus souvent dañ koy faral def dans l' après mais euh, pas si ay endométriose nii. au début déedéet. Mhm. certainement ci sa parcours bi nga tàmbalee ba léegi tey xam naa ne di nga ko fas yéene amal ba ci kanam du ñàkk nga dund benn anecdote wala benn benn loo xamante ne vraiment ça t'a marqué ba boo jànkoontelee eh, benn femme am jàngoro bi di endométriose chaque fois loolu dafay. revenir en boucle euh, donc euh, ci sa bopp bi. bon ci endométriose euh, anecdote moo yaakaar naa ne amu ma ko ji si endométriose. Mhm. déedéet donc amuma amuma amu ci anecdote ci endométriose. Mhm. Mhm. déedéet. fii lan dépend ci contexte bi ça dépend ci lu bari franchement. Euh, leen li mu mën a expliquer rek mooy ne benn bés euh, recevoir naa benn couple. Mm-hmm. parce que le plus souvent xam nga affaire am doom affaire couple la. Mm-hmm. alors dañu convoqué waa ji di ko convoqué muy bañ di bañ benn jour mu ñëw ànd ak jabar ji ñu xoole seen analyse ñoom ñaar ñëpp ñu gis ne waa ji moo am problème donc wala jaani ñoo problème moo tax femme bi depuis presque huit ans donc mënu mu ngi faju mais mënul mënul jël ëmb juróom-ñetti at nu jël grossesse. alors euh, bi nga xamee ne si waa ji la waa ji toog jabar ji toog bi femme bi xamee loolu mu daal di jug ne ko may ma sama baat ah mu ne ko man de du fii lañ ko takkee woon de en tout cas boo ñaan baat moom ñaanee ko feneen mais fii moom ñu ñu fii pour di tas ay sëy daal. waaw loolu moom maa ngi ko ci fàttaliku. am si beneen boo xamante ne ko dafa yéexoon sëy tamit bi ñu xamee ne euh, problème bi si jëkkër ji la nekk donc comme yéex na sëy mu ne moom amul jot jotu xaar kuy faju day tas daal di wuti keneen daal koo xam ne day apte na daal. voilà mm-hmm. yooyu moom ak yeneen yoo xam ne dañ ko siy dund. mais euh, voilà ñaari daal mën naa ko ci mën naa ko ci maye daal mm-hmm. mën naa ko ci maye waaw. ñaari cas yi nga wax yëpp docteur Cissé mu mel ni que ne euh, am na ñoo xamante ne seen jëkkër ñoom ñooy am feebar bi mais comme nuñ koy nuñ ko nu ñu nuñ ñu mooñaalee jigéen mooy ëmb moom mooy wasin donc du ko société bi bu fekkente ne même dafa jóge ci ku góor ki maanaam dafay am jafe-jafe moom mu dem ci bërëbu fajukaay yi waxatuma la ak di def ay séance de traitement moo xam euh, médecine moderne wala médecine tradi moderne. waaw loolu am na xam nga bu yàggoo rek sax am na si koo xamante ne ndeysaan xale la mu ngi am vingt deux xam vingt trois ans yooyu. Mm-hmm. problème bi nekk si jëkkër ji mais goro yi may ko jàmm tout le temps mi ngi koy gaaruwaale mi ngi koy jëw. Mm-hmm. moom dematul sax xew léegi sax ci li mu ma wax dematul xew parce que saa yu demee bu jubbee sorgho mi ku nekk am nga ñaar bi ñetti doom te moom amagul doom. te yàlla xam naa ne jëkkër ji moo feebar ñu koy suivre en urologie mm-hmm. donc euh, maa ngi jokkoo ak urologue bi koy suivre tout le temps Euh, mais moom mu ngi garder secret bi bañ a wax na jëkkër ji moom problème waxu ko en tout cas gorom bi mais jëkkër ji xam na ko te bi léegi nii dafa benn damp maanaam réaction. pour wax gorom bi ma maanaam mu noppal jabaram daal. si yenn yi daal si yenn wax yi parce que. Euh, euh, femme bi amul benn benn problème macha allah amul benn problème mais mi ngi encaissé loolu daal depuis quelques années mi ngi toog di encaissé ay yu nekk parce que cinq ans mi ngi sëy actuellement nii dafa teel a sëy depuis cinq ans mi ngi sëy mi ngi am vingt deux vingt trois ans mais ba léegi nii daal euh, mi ngi engagé loolu daal. donc day leen day toog ni néegam jooy jooy après génn parce que vraiment bon xamul lu muy def daal xamul lu muy def mais jëkkër jaa ngi faju quand am na volonté mi ngi faju mooy yàlla defagul daal ñu mën na def euh, fécondation in vitro wala ñu jël mu mel ni ku góor kooku sax euh, war nañ ko sar sarkal bu baax a baax ndax au moins moom à l'image des autres hommes certainement il a plus sur lui doonte metti na sax ndax on sait comment ça se passe avec euh, la société concernant lépp lu jëm ci wàllum ëmb ak wasin mais comme moom mu ngi def ci bërëbu fajukaay yi donc dañ koy wax rek mu continuer te mu bañ a baisser les bras comme on dit mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen ngi teewlu seen émission bi di SOS SOS santé tey nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di docteur Daouda Cissé moom docteur de Cissé mu nekk euh, gynécologue obstétricien wala gynécologue ak accouche accoucheur docteur Daouda Cissé mu nekk euh, gynécologue accoucheur ah ah docteur docteur dañuy xuus dem ci li nga xamante ne moom moo di wàllum alimentation bu ñu waxee AVC wax ne kii war na lekk lii warul lekk lii bu ñu waxee koo xam te dafa am problème cardiaque war na lekk lu épicé warul lekk lii donc du coup ñu bëggoon xam ndax euh, jigéen bu am jàngoro bi di endométriose dafa am ay interdit alimentaire pour mu veiller moom donc à sa propre euh, sécurité sanitaire. ah xam naa de dina xaw a metti Sénégal de mm. Sénégal daa bëgg yàpp surtout jigéen ñi. endométriose euh, nu nga ko waxee rek am na lekk yoo xamante ne dañ koy dañ koy yombal dañ koy yombal wala dañ koy euh, yokk ci lekk yooyu bokk na ci yàpp mooy viande rouge mooy yàpp nag yi donc euh, yàpp xar yeeg di demee noonu donc loolu tamit dañ koy aaye daal ci comme endométriose mm-hmm. mooy viande rouge bi ak li ñuy wax charcuterie charcuterie mooy boo xoolee li ñuy faral di ndogo jamono ji ay ñoomin saucisson mm-hmm. yi nga xamante ne c'est à base de euh, euh, de viande viande viande de bœuf mm-hmm. euh, saucisson yeeg maanaam ak yenn cornu bœuf yi nga xamante ne yooyu yëpp ci ci nag la jóge daal yooyu yëpp tamit dañ koy eh, faral di eh, en tout cas di mooy loo jigéen ñi am endométriose moo tax gëm naa ne du yomb si ñenn ñi mm-hmm. mais ay sacrifice la laaj parce que ku bëgg dara da ngay bàyyi dara nga def dara noonu la demee donc euh, ku bëgg faju endométriose wala bañ mu law fa nga bàyyi yàpp en tout cas mën ngi lekk yàpp ginaar mën ngi lekk yenn façon viande blanche yu amul problème mais lu yëpp luy jëm ci yàpp nag yàpp xar ak charcuterie yi maanaam saucisson kon bœuf yeeg yooyu noonu donc dañ ko war a dañ ko war a bàyyi. Mhm. Mhm. mu mel ni tamit war nañu éviter lépp lu jëm ci wàllum alcool ak éviter li nga xamante ne moom moo di ay produits laitiers yi. waaw yooyu yëpp dañ ko ciy dolli rek mais li gën a am solo mooy moo sànq. Mhm. mais alcool moom baaxul ci lenn <laughs> boo xoolee. alcool moom euh, feebar yu bari dañ koy faral di euh, tere. Euh, parce que moom abi bi surtout abi maanaam euh, euh, naan pour naan rek loolu dañ koy faral faral di tere ci façon feebar yu bari parce que boo xoolee li muy yàq mu ëpp li muy defar waaw. endométriose nekk certainement maladie chronique ndax am na traitement définitif. bon traitement bu définitif bu fekkee ne ba yenn stade yi la toll eggagul stade profond bi. la am na traitement définitif. Mhm. fekkee ne kis ci kese la mu ne ko dindi nga daal di wér ci loolu lu fekkee ne bul kese la tumeur endométriose kese la ñu tuddee ko endométrium loolu kese bu ñu ko dindee mën nga wër ci ci endométriose. Mhm. mais fekkee ne nekkul kyste nekkul tumeur alors euh, dafa nekk juste ay cellules yu nekk ci euh, naq bi kese yu xaw a éparpillé wu noonu ci biir ci biir loolu fekk day daal di euh, day daal di métti. donc du nekk benn faju benn fan du nekk faj du nekk traitement donc de longue durée lay nekk. traitement ba ménopause waaw. Euh, traitement de longue durée kon apparemment am na ñoo xamante ne certainement seen diagnostic euh, ça peut tirer en longueur maanaam ay année di année ngay feju euh, te du te du feeñ. waa effectivement moo tax ma li ma sànq rek boo jëlee juróomi fukki fukki fukki jigéen. Mm-hmm. ñeent ñi am nañ ko te xamuñu ko. donc ñu ngi faj euh, euh, règle douloureuse ñu ngi faj naq yi metti fekk endométriose la ñu amee te xamuñu ko donc euh, boo xoolee traitement bi su boobaa dina nekk traitement ba ménopause rek waaw. Euh, loolu docteur ci ci ci ci ci resooru kan la euh, je m'explique euh, parce que chaque fois bu fekkente ne da ngay dem hôpital nga ne sama lii mooy metti par exemple ñoo ñu lay jox ay antalgique wala ñu ñu lay jox ay antalgique di lay jox ay yoo xamante ne day calmer ay douleur parce que je suppose que mënoo dem bindal sa bopp échographie wala rajo donc est-ce que foofu tamit donc yéexte bi ci yéexte bi jógewul du côté du corps médical waaw xam nga euh, boo xoolee wàllu médecine ku nekk sa spécialité. Mhm. gynécologue yi mën nañ ko xalaat bu gaaw. Mhm. mais ñeneen ñi mën nañ ko bañ xalaat bu gaaw parce que ku nekk ak sa orientation fi nga jëm. tout voilà loolu moo tax mais boo xoolee boo gisee jigéen bu amee loolu le plus souvent mu chronique ci moom war nga ñaaw njortu ne lii mën na nekk endométriose. Mhm. bu ko defee nga daal di ko orienté sa gynécologue ba. Euh, def la ko analyse yu mu war a def ak rajo yu mu war a def boo xamee ne lii lii la nga dal ko doog a ci spécialiste yi voilà gëm naa ne aussi euh, xam an météo dafa xaw a doy waar tamit parce que. Mhm. si ñi muy joxe parfois c'est des signes yoo xamante euh, <laughs> ko waxee comme c'est la maladie des maanaam day day bëri te wuute si ñi muy joxe. Mhm. moo tax jëñoo si ko day xaw a métti wala ko day xaw a métti. Mhm. moo tax foo nga nekk ci pour nga mën a comprendre nga pour nga mën nga mën koo xalaat xalaat bu gaaw daal. Mm-hmm. mais boo ci nekkoo rek pour nga xalaat ko day xaw a yéex. Mm-hmm. te loolu day fekk ndaw si day daal di daw gauche daal dem fu nekk parce que boo xoolee ñu si gën a bari dañuy dem fii du ñu tane ñu dem feneen changer médecin du ñu tane. Mm-hmm. changer sage-femme du ñu tane ainsi de suite donc boo gisee kii def na parcours bu bari wala jaar na fu bari wala jël na façon garab yu bari. da nga xam ne kii kat est-ce que duñ gën a xool ban façon feebar la yore. voilà ndax du endométriose bi xam. dafa mel ni jàngoro bi c'est asymptomatique quelque part. non ça peut être asymptomatique mais le plus souvent c'est symptomatique. mais symptômes yi boo xoolee dafa xaw a bëri te wuute. voilà moo tax le plus souvent nit ñi dañ koy xalaat lu bëri. Mhm. mais dañ ko commencé léegi di ci xalaat surtout. bu fekkee ne euh, métti bi ku nu mu ko waxee sànq rek. Mhm. dafa yàgg ci ku ndaw si te yàgg na faju te ba tey wérul donc euh, ñu bàyyi ci xel daal gën cee bàyyi xel waaw. Mm-hmm. Euh, surtout tradition yooyu ngay wax il arrive que jigéen di saigner wala muy muy muy vomir wala muy am yenn douleurs yi laata ñuy dem au niveau des structures di def ay diagnostic am nañu ay croyances fi lañ ko fekk mun nañ wax ni dafa amee rab wala dafa amee àndandoo ndax foofu yi tamit euh, la société elle ne devrait pas être un peu plus regardant justement par rapport à les plus dal jigéen particulièrement ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllum jur butitu jurukaay bi ak euh, hygiène de vie et autres. bon wàllum euh, affaire <laughs> rab moom xam naa ne du ma ci wax lu bari mm-hmm. quoi mais mm-hmm. euh, ñi am endométriose jigéen ñooñu fekkee am nañ njëkkër ñu si gën a bari bu ñuy sëy sax day metti bu ñuy sëy sax dañ naan dañ am disparé nii maanaam boo xoolee bu ñuy sëy seen borom ko eggee si ñoom. day daal di métti tout day métti. même ay années de mariage day métti donc loolu rek mën na tax boo ko laajee ku jigéen bu loo ko waxee ëgg rek mën nga xal ni est ce que doon na endométriose la amee. moo waral loolu. donc euh, infection mën na ko joxe mais endométriose tamit da koy joxe. wala mm-hmm. war nañ ci bàyyi xel tout le temps di ko laaj jigéen ñi ndax bu ñuy sëy est-ce que day métti fan lay fan lay méttee ban niveau mooy métti est-ce que ci pénétration bi mooy métti wala ci biir wala ci sës bi mooy métti ak yu demee noonu comme ça dañu am orientation rek. Mm-hmm. ndax endométriose ndax du endométriose. Mm-hmm. waaw. Euh, docteur Daouda Cissé ñu ñëw ci li nga xamante ne moom moo di sa liggéey gynécologue obstétricien wala gynécologue accoucheur euh, c'est quoi la différence. <laughs> bon obstétrique moom obstétrique mooy lépp lu jëm ci. ëmb rek maanaam euh, ëmb wasin ak après wasin mhm. ñu naan euh, suite de couche loolu mooy ëmb mooy euh, mooy obstétricien mhm. lépp lu ànd ak ëmb loolu obstétrique la mais accoucheur mooy <laughs> accouchement rek comme ko ëmb di ko wasin mhm. noo mënti wasin tam wasin la rek muy césarienne muy accouchement normal ak yëpp yëpp accouchement rek mais xam nga boo xoolee Euh, population ñu bëri du xam ne obstétricien mu dañu a accoucheur voilà accoucheur mu gën a yomb a xam ko pour faire plus mm-hmm. mais obstétrique mooy lépp li nga xamante ne maanaam dafa aajo si jàngo maanaam si jigéen bi nga xamante ne euh, dafa war na lor ba woyosin ba donc euh, euh, euh, six semaines après accouchement mhm. loolu mooy góor am na gynécologue jigéen am na damay ñëw ci seen pa particularité naka ngeen di dundee donc le fait que. ñu am ñoo xamante ne dañuy préférer bu ñu amee seen jabar euh, certainement tu vas m'en un peu plus ndax c'est toujours le cas ou bien la donne commence à changer dañuy préférer seen doom seen euh, jabar autant pour moi di def consultation gynécologique avec une dame et mieux euh, avec un homme. waaw loolu day am yàggul semaine passée rek am na ma laaj ndax gynécologue bu jigéen amul foofu ma demoon mu ne ko ah pour l'instant day man maa fi ñëw di xaw ma waaw mais nag euh, jigéen ñi macha allah euh, léegi bari nañ si euh, gynécologie bi ak obstétrique bi léegi bari nañ moo tax ku mu nekk ku mu nekk am nga sa choix en fait am nga sa choix mais yaakaar naa ne baal ma dañ ma téléphone ñëpp benn lañ ñëpp lañ maa ngi fàttaliku bi may stage fële ca France. 2011 mhm. ba 2012. Mhm. am na ay naar yi daal di ñëw boo xoolee ibaadu yi surtout ak naar yi yooyu ñu muuru. ñooy faral di choisir gynécologue bu jigéen boo xoolee même Sénégal fii sax boo xool ibaadu yi mm-hmm. loolu la ñu préféré mm-hmm. euh, mais euh, lu si ci mënti nekk rek liggéey la rek boo xam ne góor mun na ko def jigéen mun na ko def mm-hmm. euh, te dañuy des ci cadre liggéey rek nekk ci esprit liggéey ànd ci éthique ak déontologie loolu moo tax gëm naa ne ñi nga xamante ne dañuy am choix boobu war nañ dalal seen xel te xam ne liggéey liggéey la rek donc weesuwul cadre liggéey parce que boo xoolee naar boobu ma lay wax noonu par exemple ca France dafa mës ñoo fekk ma garde mu ñëw laaj ma jigéen ma ban la fiy nekk. Ah, mu ne. mu laaj ma ban jour la fi bu jigéen di fi nekk. mu ko ah, xaw ma de da ngay ñaar suba xool bi xam. Mm-hmm. fekk maa ngi tiim liste de garde bii ne naa ñuy garde xanaa ne suba ji góor moo fiy nekkaat. suba sa mu ñëw fekk fa góor gannaaw suba sa mu ñëw encore fekkaat ma fa encore. Mm-hmm. finalement mu xam ne donc euh, <laughs> mu ngi noonu daal. Mm-hmm. donc euh, mu bàyyi ñu xool jabaram parce que boo xoolee lu ci mënti nekk rek man xam lu nekk seen ginnaaw bopp xam lu ñuy xaal dama xaw ma daal mais euh, ñun ñi di di ko liggéey en tout cas dañ jàppee jigéen ñooñu comme ay a comme ay góor rek au fait boo xoolee. Mm-hmm. waaw parce que nekk loo xamante ne maanaam xam naa mun expliquer daal mais daal. képp ku si am sa jabar daal gis nga ko bu ko wala koo seet. da mm. nga dalal sa xel daal xam ne liggéey kese la mm-hmm. waaw. mu mel ni kon yombul à ce niveau. waaw yomb moom pour ñenn ñi pour ñenn ñi moom yombul mais pour ñenn ñi ñun ñu préféré góor tamit am na jigéen ñoo xamante ne góor lañ préféré mu nekk seen gynécologue. Mm-hmm. mais nekkul ñëpp loolu moo tax. d'accord Euh, ñu wax ci leneen fii au Sénégal euh, à à quel moment ban ban moment le le le jigéen di di dem seeti gynécologue ba xam dafay nekk xale am ay règles douloureuses di dem consulter wu wala dafay bàyyi ba nga xamante ne nekk na si buum sëy gis fa loo xamante ne jaaxal na ko mu ne xaar ma dem xool gynécologue bi parce que j'ai comme l'impression que quand on parle de gynécologue euh, les gens ont tendance à voir plutôt l'aspect sexuel donc que que l'aspect sanitaire. voilà loolu moom euh, dafa laaj éducation parce que boo xoolee effectivement ni nga ko waxee noonu la demee ku amul feebaru gynéco doo ñëw alors que gynéco waroo xaar bu feebar doo doo doo ñëw si moom parce que moom il joue d'abord un préventif maanaam da lay day xool yi aar ba pare balaa mu lay faj. Mm-hmm. te boo xoolee effectivement ni nga ko waxee noonu la demee boo xoolee ñi amagul jëkkër ñëpp ñu faral di ñëw. maternité dañu yaakaar ne dañuy def ci planning wala dañuy def ci affaire sexualité la ñuy waxtaan seegi demee noonu daal. Mm-hmm. alors que du loolu ku commencé gis say faute daal mais boo gisee sa faute nii sax boo puberté rek commencé maanaam am ween commencé am karaw yu demee noonu maanaam mm-hmm. nekk ci puberté wala nga commencé gis gynécologue comme ça mu lay expliquer. nga xam sa bopp xam sa yara xam risque xam risque yi nga xamante ne euh, mu ngi nekk mi ngi nekk sa kanam nga mën koo moytu ki demee noonu daal mhm. waaw. tey jii ñuy tombek jamono ji di coronavirus bi et comment ça se passe au niveau de la fréquence ndax euh, clientèle bi ñu ngi ñëw ba léegi wala dañoo xaw a réticent parce que jàngoro bi mu ngi fi et puis euh, contact bi c'est tout le temps permanent. waaw am na jamono nag si li nga naan première vague ba. donc euh, ni ñi euh, fréquentation bi xawoon na wàññeeku ci hôpital yi mm-hmm. Mm-hmm. xawoon na wàññeeku ñi nga xamante ne daal ñu ëmb rek ñu daan ñëw presque mais euh, gynéco bi xawoon na wàññeeku daal consultation yi mm-hmm. mais depuis li ñu naan deuxième vague nii ba léegi boo xoolee fréquentation bi dafa ñëwaat à la normale man dañu commencé nañ di dund ak virus bi ak corona bi dund ak moom nekk ak moom di jël seeni mesures barrières di ñëw hôpital consultation comme avant. Mm-hmm. Mm-hmm. dañuy des ci wàllum loolu la consultation gynécologue euh, ndax euh, c'est c'est c'est donné donc au au Sénégalais lambda. waaw xam nga loolu ça dépend ci euh, fi nga ko bëgg a defee rek mm-hmm. bu fekkee ne ci privé la privé moom ñëpp xam nañ ne privé yombul te kenn mayewu ko. bu fekkee ne c'est vraiment en public. lu ci mel ni yenn hôpital yi boo xoolee. comme man mhm. fi ma nekk nii euh, CTO. Mhm. donc euh, consultation gynécologie bi foofu donc euh, cinq mille francs la donc cinq mille francs la alors que am na fenn fooy dem di nga fay bi quinze mille jëm kaw. waaw donc mais cinq mille francs yaakaar naa ne ku nekk mën na ko yàlla mën na ko may ku ne. mu mën def consultation gynécologique comme euh, euh, normalement. Mhm. docteur mu mel ni waxtaan wi am na solo mais dafa mel ni lu ñu cëraloon ci waxtu bi yegg nañ ci docteur euh, Daouda Ciss. waaw di rafetlu vraiment <laughs> invitation bi. et puis ak bi ngeen di waxtaanee nag thème am solo. Mhm. boo xam ne nit ñi dañ ko xaw a réeree mbir. donc jigéen ñi ñu ngi am métit yu doy waar di ko di ko muñ te vraiment endométriose moo koy waral. Mhm. moo tax jàpp naa ne ku déglu émission bii nii gën nga si jëlee euh, maanaam jàngat boo xamante ne mooy tax euh, boo amee lu mel ni li ñu wax nii nga ñëw consultation nga ñëw xaar. waaw mm-hmm. te it euh, ñu xamal nit ñi tamit rajo bi nga xamante ne mooy tax ñu xam ne lii endométriose la daanaka yomb na yombul ci wàllum li nga war a fay daal yomb na yombul mm-hmm. mais war na ko jar bu ko defee. Euh, ñoo xam ne lii nga amee mën na koo fajal ni mu waree Mm-hmm. waaw di leen euh, mm-hmm. Mm-hmm. donc euh, kàddu gi leer na ab ndaw boo demee ba nga xamante ne say say say règle circuit bi dafa court wala booy gis baax après avant douleurs yi nekk ay douleurs yoo xamante ne dafa jéggi dayo donc bul xaar euh, demal ci kër docteur nga jéem a def li nga xamante ne moom moo di ay rajo ay imagerie entre autres pour nga mën a certifier douleurs yooyu di persister donc lan moo ko jur ndax apparemment douleurs yooyu bu yàggee wala bu ñu ko jiyee yéexee diagnostiqué mun na la jural endométriose c'est endométriose bu ñu sukkandikoo ci suñu docteur bi di Daouda Ciss bu ñu demee ba ca ndaw la am doom dina nekk lu jafe loolu wala nga def recours à ce qu'on peut donc euh, la fécondation in vitro mu nekk loo xamante ne certainement nekk na loo xamante ne c'est pas donné à toutes les femmes ou bien à toutes les bourses donc euh, jaajëfal leen bu baax baax yéen mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen ngi den déglu seen bi SOS santé amoon toon mbégte ak bànneex daan dalal ki nga xamante ne moom moo di docteur Daouda Ciss moom docteur Daouda Ciss nekk euh, gynécologue accoucheur ñu jaaja jaajako jaajëfal ko bu baax a baax ndax euh, OFT fam ak disponibilité seen émission SOS santé Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Léopold Mendy nekkoon ci xarale bi beneen vendredi beneen émission ak euh, beneen invité jërë ngeen jëf ci déglu bi